Birame Diouf jërë ngeen jëf mbënd mi ci réew mi tax na opposition bi ci réew mi ñoo ngi dëmmante lu rëy ci réew mi journal L'As moo ko bind ni mu ko bindee moo di inondation yi tax na opposition bi suux Idrissa Seck ak ñi koy jàppal tànk ñoo ubbi yëf yi mbii fa foore lu rëy njiital Pastef di Ousmane Sonko buggaan gi dani ñëw doole ci xar mi karaw keroog gi dégg nañu ceex na bokk mu mel ne kuy gaaral Ousmane Sonko la Sénégal nañu ñoom ñëpp Ousmane Sonko tontu wax maa leen koy wax ca si gi ne opposant yu bari ci géopolitique bi ñu ci bari benn opposant la ñu am mu di Ousmane Sonko am na ci réew mi ay opposant yoo xam ne Macky moo leen di financé ngir ñuy songu Sonko ay turu opposant rek la waaye duñu ci lenn l'observateur nañu moom Ousmane Sonko Casamance ga mu yendu démb deru Macky Sall jaru fa dërëm Sonko nee na Macky bëggul Casamance bëggul sax Sénégal faalewu leen ñi mu faale ñoo di waa Europe waa France waa Turquie wala waa Chine nga xam am ci miliyaar Macky Sall dajale ko jox ko seeni entreprise Ousmane Sonko Pastef mësuma ko wax la si ne kay nañu waaye lii moo ko wax ci làmmiñu boppam moo ne ci ñaar fukki milliards ak benn yi état bi ne woon da koy dugal diwaanu Sigicoor benn projet juróomi milliards cote la fa def te ba léegi seeni borom jotaguñu ko ndax kenn livré gu ko Sine Saalum foo daat leen xalam yi te rëkk junjum yi yéen a ngi waaj a am gan Soleil national xëy nañu xibaar ne président national di Macky Sall dafay delluwaat ci tournée économique yi mu doon def fukki fan ak juróom-ñeent ba ñaar fan ceeru sàttumbar mu nga jëm la si ne kay nañu démb na ca palais ba maire bu Agnam di Farba lañ fa doon waxtaane waaye benn projet bu war a def ci añaam góodoo lañ doon waxtaane ca ndajama yéenekaay bi nee nañu directeur général bu AGETIP di El Hadji Malick Gaye ma nga fa woon ak it responsable yu boo xam ne loxoom dugg na bu baax a baax ci projet bi journal las nañu projet la boobu président Macky Sall validé na ko ba noppi rafetlu taxawaayu promoteur yi nekk ci ginnaaw ginnaaw loolee la tribune xamal nañu ne lu jëm ci gouvernement bu yees bi ñuy séentu ci réew mi lu am la Macky Sall ma nga ca ma nga ko waajal defar na blisam ba mu jëkkatëyee li muy xaar rek moo di bés bu rafet mu doxal ko la tribune nañu teyit for nañu nañu ay xibaar yu wax ne gouvernement bi Macky Sall di muulaat ci réew mi am na nu muy demee ñu seen ca waa parti des libéraux et démocrates ànd suqali mu di ñoom Omar Sarr ak ñoom maître El Hadji Amadou Sall gouvernement lay doon boo xam ne li ko tax a dina bokk ci waajal élection locale yi ba mën a tegaat loxo maire bu Ndakaaru Tiwaawoon dëkkub Maam Seydi Hadji Malick Si radiyallahu taala anhu la fa xew xibaar la bopp yéenekaay bari ñu xëy nañu àdduna gu sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh l'observateur xibaar ñu fukki millions yoo xam ne groupe Futur Média jàppe na ko ca liggéey ba ba nuppit xamle na duñu ci am Les Échos nañu lancement travaux achèvement grande mosquée bu Tivaouane ci ay waxtu yu néew dajale nañu lu ëpp benn milliard ak genn wàll njiital Malikia diggée na ñetti téeméeri millions Dame Diop Mansour joxe ca téeméeri millions élagement ñu ngi jégalu bu baax a baax dafa mel ne